ñoo ngi nuyu mbokk yi teew yépp di ziyaara sunu kilifa yi fi teew di leen wax assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu euh, di am mbégte ci taxawaay yi lool muy taxawaay yi nga xam ni dafa mel ni yoonu murit yëpp jamono bi ñu toll ñu ci ëpp wëlbatikuwaat nañ jëm ci xam-xam mu mel ni kon wëlbatiku jëm ci xam-xam la mu doon tekki mooy bu fekkoon ne ab guerre la diggante yoonu murit ak seytaane day mel ni ñi ngi koy bëgg a daaneel ndax Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu dafa waxoon ni ومن مكائد اللعين أيضا أخزاه باق لي يديم فيضا صد المريدين عن التعلم فوق اللي بقول فخي الشيطان يمكوي فخيل تدني ديكو كو فخيل مو دوخ بو مو دوخ ديغنتي موريتي اك ساكو خام خام مو ملي كون بو نو دبي نيب جيم سي Euh, noo ngi koy bëgg a daaneel noo ngi ñaan yàlla mu defal noo ci tawféex ba nu jëmale ko kanam ba li sëriñ bi namoon ci noonu lépp mu teg ci bëtam tey ñu ñëw fii ci jàkka ji jàkka ju tedd ji di fi waxtaane tomb bu am solo mooy alal ban rôle la mën a jouer ci defar dundu doomu aadama yi bu fekkee ni saytoo nañu ko nañu ko war a saytoo euh, mu doon thème boo xam ne lu am solo la di ko waxtaane ndax ku ne xam na ne doomu adama suñu borom moo ko bind bëgg loo ko alal wa tuhibbuna al maala hubban jamma loolu loolu mbirum suñu borom la tabian doomu la mu mel ni li li ñuy faral di wax muy yonente bu ne yàlla yónni na ko fi ñii gëm ko ñee weddi ko waaye alal moom bu fekkoon ni ab yonente la moom dafa mel ni am na sens bu kenn weddiwu ko ñu baax ñi yëngatu ci diine Euh, am nañ ca ab cër ci nu ñu ko gëme ña ca des ña yëngutu ci leneen nit noonu waaye ñun ñu nekk ci euh, loxo yoo xam ni muy loxo yi diine islaam lu mën a doon dañu war a dem laaj ko fu nu cay jaar mu wax nu ko ñu jéem faa jaar li fekk condamné nañu sunu bopp ci ci ni ko noo ci say loxo rek kon yàlla na ci noonu lu mën a doon rek ñun ñu delluwaat ci moom laaj ko mu wax nu fa nu say jaar doomu aadama sunu borom daf ko bind defal ko am xel bind ko defal ko ab xol bind ko defal ko lu ñuy tuddee ak ruux bind ko yit defal ko aw yaram ñett yooyu lu ci na dafa am lum soxla ñu war ko caa suuxat xelum doomu aadama mooy li jàpp di xam waaye nag jamono bu ne laaj na ñu di ko suuxate ndoxum xam-xam xel ci xam-xam di ko suuxate ndoxum xam waaye xol mooy li nekk ci doomu bi di bëgg ak bañ di bëgg aka bañ ruu mbir la moo xam ni mooy tax xol a bëgg mbaa muy bañ mooy tax xel a jàpp mbaa muy bàyyi waaye ni mu bind ñaar yooyu ñu doon yu am solo ci nit ki nga xam ne bu ñuy wax nit sax ñaar yooyu tax ñuy wax muy xelam ak ruuxam ñaar yooyu ñooy xaqiiqa doomu aadama waaye xaqiiqa boobu nag dafa mën sa taxaw ci lu dul muy jafandu fenn muy ci aw yaram la mën a nekk jafandu ca waaye nit ki duñu ak ruuxu akum xel li ñuy am am am solo mënuñoo beru ne rek di jëf ci lu ñuy nekk ci biiru yaram te yaram woowu moom itam dafa soxla dundu dafa soxla lekk soxla naan soxla ak col te bi mu ko soxlaa du ko mën a am mukk ci lu dul alal alal jooju nag benn moom moom mii di ko jëfandikoo moo ko yëngatu wala mu sukkandiku ci alal jàmbur waaye alal ñooy tax nit a lekk alalee tax nit a naan alal mooy tax nit di solo kon ab tomb la ci dundub doomu boo xam ne mënu koo ñàkk alal nit mënu koo ñàkk ndax ginnaaw mënta ñàkk naan mënta ñàkk lekk mënta ñàkk solo te bala mu koo mën a def dafa am alal kon alal farata la ci moom li nit yi usul yi wax ni lépp loo xam ni euh, bu amul la war a am du am kon loolu yi daa war a jëkk am bi noppi mooy maa laa yatimul waajibu illa bihi fa waajib lépp loo xam ni bu amul la war a am du am loolee farata la ci yow loolu moo tax islaam ñett yooyu yépp la sonne ñett yépp dañ ko ñor ci doomu aadama bi day jël nit ci wàllu xel jël nit ci wàllu ruuxam jël nit ci wàllu yaram mosu ci way xel dara dëgg la euh, diine jamono bu ne daf ñuy soññi ci dëddu àdduna waaye nag soññee dëddu àdduna tekkiwul wàcce àdduna soññee gi mu soññ ci dëddu àdduna tekkiwul ne nu wàcce leen àdduna lam jublu lépp lépp ci soññee dëddu àdduna mooy dafa am ñaari kër muy àdduna ak alaxira mu xamal la ni la nanga nga tànn bee ne la bee gënal ci biir bul jiital bii ca bee wala al axiratu xayrul laka min al ula wan la ni la ëllëg moo gën ci yow tey waaye tekkiwut nag ni la wàccal lépp définitif alquran moo nu dëdduloo àdduna moo ni falaa taxurrannakum alxayaatu dunya wala yaxurrannakum billahi alxarur alquran yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax nu ni adduna bu fekkoon ne dana peese fa yàlla luy toll ni loo kon ab yéefar du fi am guuxum ndox bu mu guux lu wax yonent bi la sallallahu alayhi wa nit ñëw ni ko dama bëggoon a xam nan laay def ba yàlla bëgg ma nit ñi bëgg ma mu ne ko dangay ngay dëddu adduna boo ko defee yàlla dina la bëgg nit ñi it it boo dëddoo la ñu yor ñu bëgg la izhad fi dunya yuhibbaka allah wazhad fi ma inda annaasi yuhibbaka annaas kon kon loolu lépp ay alqu ay alquran la ak i xadis yu yonente bi salallahu alayhi wa sallam yoo xam ni dafay xiirtal nit ñi ci dëddu àdduna waaye nag dëddu ni ma ko waxee woon léegi tekkiwul wàccandiku wàcc lépp ba doo ci yëngutu ci dara ndax ku ko déggee noonu rek déggee ko ni mooy bañ a yëngutu ci dara ci àdduna rek danga dem ba bis ñëw boo xam ne danga nga ca xamee ni ndeke lii ma déggoon wérut waaw ndax mbooloo ñëw nañu ci yonante bi ni ko ñun de gis nañu ni boroom alal yi ëpp nañu nu tawfiq yóbbu nañu yiw yépp ndax ñi ngi julli ni ñuy julle di woor ni ñuy woore waaye nag di jàng alquran ni ñu koy jàng waaye nag am nañu alal yu ñu mën a sarxe te amunu ko yonente bi ni leen mën naa leen jox loo xam ni dana taxaw taxawaayu sarxe nga xam ne bu ñooña amee luñ sarxe yéen bu ngeen defee lii da ngeen mel ni ku sarxe ni leen subhanallahi ju ngeen wax am ngeen ca yoolub ku sarxe alhamdulilahi ju ngeen wax am ngeen sa yoolub ku sarxe allahu akbar ju ngeen waxit am ngeen sa yoolub ku sarxe ba ñu ko jàppee ba ni kon am nanu sun cërub bopp boo xam ne kenn du duñu ca teg ñooñee amoon alal dégg ko daal koy fab di ko jëfandikoo nañu koy jëfandikoo ñu dellu ci yonente bi ni ko ah ñun kat la nga nu waxoon ñee amee alal dégg ko ba ña ngi koy def nii nu koy defee ba noppi ci teewul ñu ngi continuer di sarxe lañu daan ñu sarxe yonente bi ne loolu yi nag nga neelul yàlla la loo xam ne mooy seet koo ko neex mu defal ko kon bëgguñu ku dégge mukk dëddu àdduna ne mooy nga wàcc àdduna ba doo ci yëngut am na koo xam ne si Abdou Lahad moo ko ne ko àdduna doo ko wàcc doo ko yanu mu ne ko kon nu ma koy def mu ne ko boo ko yanoo ba ñëpp seen la nga di ko jang-jange dootoo ko mën a teg ci suuf te bu boobaa dana la jat àdduna boo ko yanoo mu jat mu ne ko waaw mu ne ko waaye boo ko wàccee mu alag la nag wàcce gi mooy bañ saa yëngatu ci dara da dem ba bëgg a faj soxla mu tëla mu ne ko kon ana nu ma koy def bu fekkee du ko du ma ko yanul duma du ma ko wàcc du ma teg ci suuf mu ne ko danga koy taaw ngay taawu àdduna saa bu diisee nga teg ci suuf boo jëkkat di ko jëlaat kon àdduna dafa am yoon wuñ bëgg ku ko ko téye waaye bëgguñ ku ko wàcc ndax nit mën sa ñàkk dund mënta ñàkk lekk mënta ñàkk naan mënta ñàkk sol te yooyu yëpp ci alal la mën a jaare kon alal farata la ci moom waaye nag ci li nu jàng ci histoire yonent bi sallallahu alayhi ko ci siira saxaaba danañ ci xam alal bu ñu ko saytoo nañu ko war a saytoo amul moroom ci lijjanti ab société ba mu tegu ci aw yoon amu ci moroom te loolu sax jëkk ñuy dem ci sira saaba saxaaba yi mbaa sira yonente bi jamono bii nu toll ku ne xam na ni bari na lu nit ñàkk loo xam ni ñàkki moyen moo ko ko teg nit dana yor lu am solo lu wëloore dana am ay xalaat yu baax mën naa dem sax boobu mën a bind ay téere yu bare bari yoo xam ne waroon naa mën a jariñ nit ñi waaye bu amut moyen bu mu ko tasaawee la mu doon xalaat lépp day mujj nax sax dara du ci jal mu mel ni it jafe-jafe alal ji ñu am amewuñ ko ci jafe-jafe ñàkk alal dëgg la sax euh, am na ñu waaye nag liy suñu jafe-jafe dëgg du jafe-jafe ñàkk alal dëgg-dëgg waaye liy jafe-jafe bi mooy nan lañuy ñuy tasaaree alal jooju ci suñu biir saytu ko ba jëfandikoo ko nañ ko war a jëfandikoo ndax jamono bu ne damay jàmbat di wax ni lu tax corniche bii boo fa demee fekk mu fees dell ak i nit am na ci ñooñ dañuy yor pikk ak peer xëy ba ngoon jot bëgg ku leen defloo dara képp duñ ko am ñu dellu ak seen loxo ki si noonu ma jàmbat ko ay yoon ba nit ni ma ñooñee nag boo ko seetloo ñu ci ëpp bootul danañ am mbokk moo xam ni waroon na leen a mën a jàppale ñu jàll waaye liy jafe-jafe liy jafe-jafe ci ñi war a mën a jàppale it da day def ñaare fukki nit yow góor góorlu ba jubloo jàppale ba ba jub leen a jàppale lebal leen alal ni leen dem leen def nangam baa nga jël leen dugal leen ci sab liggéey bëgg ñu jàppale la ci liggéey bi lu ci ëpp juróom-ñett dañ lay war léegi muy jafe-jafe boo xam ni indiwaat na jafe-jafe mu mat di bàyyi xel lool di xool nu nuy xool ba jafe-jafe yooyu mën a wàññi ko ndax nit fekk na ma sama kër fan yi ni ma man jàng naa alxuraan ba mokkal ko jàng naa aslaf ci xam-xam ba yeewu ci waaye nag eh, jàng yit maçon ba man ko waaye ñàkk gu ma ñàkk lu ma def tax na fii ci dëkk bi fi laa jëkk euh, dugge ci ab force ngacc ngacc ko ci sama loxo ngir këram jiital te xaw ma nu may def yooyu yëpp nag mu mel ni lu mat di lu xar ci la di ko xam di ko bàyyi xel lool di xool ba xam nu nuy xoole ba lijjantiwaale euh, lëj yooyu te sunu borom lan la bëgg ci alal ji mu joxe ndax dafa bëgg rek ku ci jot ni ko katiiw denc ko fenn kenn dootu ko teg bët déedéet bëggewu ko noonu ndax dafa wax ne kay laa yakuna duulatam bayna al agniyaai minkum moom bañ alal ji euh, di wëndeelu rek ci diggante ñi am alal te ña ñàkkoon seen yoon du ci nekk mu mel ni kon euh, jamono bu ne war nañuy bàyyi xel loolu kay laa yakuna duulatam baynal agniyaa minkum alal ji suñu borom bay bañ mu doon lu ñuy wëndeel rek ci suñu diggante ñi am rek moom ko ña amul jamono bu ne ñuy gën di tuskare saa bu alal ji nekkee ci loxoy ñi am ña ñàkk jamono bu ne ñuy gën di ñàkk dana jur jafe-jafe yu rëy ci société bi ndax Euh, ci réew yu yi ñuy tudde sous-développé ci la jafe-jafe bi meloon defaral di am nit koo xam mën naa denc fukki tonni ceeb dend ak koo xam ni benn benn kilo ceeb wala liibaru ceeb bu mu suur bu subaa képp amul loolu daanaka ci sunu réew yi la ëppee waaye réew yi jàll dëgg dëgg dëgg sax dañoo fexe dañuy la leen di la leen di gën a jàll la leen gën a ñor mooy fexe ba nit ñi di jàll fexe ba nit ñi am luñ jàpp waaye mu mel ni euh, ñun àggagunu foofa li ñu gën a dund daal mooy nit mën naa dem ci fukki tonne ceeb nit den nag moom amul liibaru ceeb bu mu sóor bu ko defee nag bu euh, dana ko nangoo jaamu moom itam mën naa am sax mu nangu njaam waaye loolu lu muy sabab ci dund bi dana sabab ak rëy ci borom koom waaye mën naa sabab ci ki ñàkk yi ak bañ ko ak iñaane ko mu doon ñaari jikko yoo xam ni lu ci ne dafa yàq ab société muy rëy dafa yàq ab société waaye ki nga xam ni amut ba tax muy iñaan mbaa muy bañ ka amit loolu ba tey eh, buñ ko toppee mën naa indi yàqu-yàqu yu rëy ci kanam ndax loolu mën naa indi explosion bu mel ni ba amoon ca France ay jamono ndax révolte bi ñuy wax ci France ay ñetti nit ak ñeent ñoo xam ni dañoo amut lu ñu jàpp ñoo toog wéet xalaat daldi nag léegi ñii ñii niñ doone ay patron di am lu leen neex ñii ñàkk amuñ dara ñii di liggéey ñii liggéey ñii nangam loolu war nañ ci war nañ ci sàkk pexe ñooñu bañ sàkkee pexe ba def révolte ba révolte ba dafa jur yeneen révolte jigéen ñi révolte liggéeykat yi révolte mujj diine ji ci boppam ñoo mujj rewalte dañoo mujj rewalteel diine ni jëmmi diine sax wérul lay ñàkk googu yi ba mu amee ci ñennat ñennat yor am koom di ko doxe ba ñoo ñëwee sos ab rewalte dañoo mujj rewalte yooyu sos ay révolution yu bari yoo xam ne ci lañ mujj rewalte ci mbirum diine ni diine ci boppam sax lañ fi bëgg di sànni leen ba France ba ñuy bàyyi diine ka fa représenté woon diine ja dañ ko yóbbu ba ca béréb bañ gënoon a war maal ca ca ñu ñu rendi ko daal di nag jaaxle bu fi kenn waxati mbirum nañ ñuy bàyyi xel ni alal saytu ko ni ñu ko war a saytoo lu am solo la ci defar nit ñi ñàkk koo saytu it li mën a yàq bari na ndax day yàq ba jëmmi diine jañ doon kapsi kapsi sax mën na ko yàq mën na ko dindi sànni ndax tubaab yi muy France boobu ñoom seen bañu diine foofu la tàmbale ci rewalte yoo xamante ni ay liggéeykat ñoo ko doon rewalte loolu di mata bàyyi xel jamono bu ne yonent bi sallallahu alayhi wa mu mel ni xaqiiqa boobu la xamoon loolu suñu borom wax ci alquran di ko bañ mu xamit doomu aadama ci lim mën a wéy loolu moo waral bi mu ñëwee Madina la ko jëkk ñor mooy wàllu économie wala économie la jëkk lijjanti ndax euh, mi ngi ko tàmbulee ci muhaajiroona yi nga xam ne dañoo gàddaaye Màkka ñëw Madina te biñ ñëwee nalewuñ dara ay fuqaraaw lañ léegi lam jëkk a lijjanti mooy nu ñu dunde ñoom nu ñu dunde te mooy benn muhaajir bu ne mu boole ko benn ansaari yu ni leen dee leen jàppalante kenn ku ne ci yéen lu mu am na ko bokk ak moroom ñu di ko doxee ba di ci nett li bokkoo bu yéeme sax ci Euh, lu saxaaba yi jàngale ci dund guñ dund alxuraan ndax abdurahman ibnu awf moom lañ boole woon ak ku ñuy wax saad ibnu rabi mu àgg ci ni ko wax abdurahman ni ko maa fi ëpp alal ci addu ci madina gii dama bëgg xaaj alal ji ci digg bi jox la genn wàll gi ngir jëfe ndigalu yonente ñaari soxna it laa am mën ngaa xool ci ñaar ñooñu koo ci bëgg rek ma wàcce ko nga takk waaye bi mu bëggee ngërëm bëggee jëfe ndigalul yonente bi ba wax ko loolu yëpp kii ñuy woo ci alal ji it dafa am dignité moom itam dignité ni ko yal na la yàlla defal barke ci sa alal defal la ko ci sa njaboot waaye nag damaa bëgg nga won ma yoon wi nga jaar ba am lii nga am rek won ma rek yoonu marché mu mel ni kon maanaam pour ñu saytu alal ni ñu ko war a saytoo ak dox ci nañ ca war a doxe fokk dañuy delluwaat rek ci diine ba mu yar nu ba defar nu ba noppi ñu doog a xam ne fu ñu jaar xokk moom mooy wone aw yoon ndax diine ni mu bëggee kuy sarxe noonu la bañ a ku yelwaan diine ni mu diglee sarxe noonu la teree yelwaan àgg na ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam lañu ñëw laaj ko mu jox leen ñëwaat laaj ko mu jox leen bañ ko laaj yoon ñetteel dafa tàng ci seen kaw ni leen lépp lu ma am bu ñu ma leen ko jox waaye nag na xam ne jël ak buum dem ba ca àll ba taxane fa jël sa yu mat jaay ko la nga cay am jariñoo ko moo gën ci yow yi war di laaj nit ñi moo xam jox nañu la moo xam joxuñu la kon ni mu diglee sarxe noonu la bañee laaj mu mel ni kon bokkale googee boole gam boole woon diggante muhaajiroon yi ak lansaar lansaar yi ci seen wàllu économie ñuy jàppalante ci dund loolu jamono bu ne war nañ koy nafar ci di seet ni ñuy jàppalante ba nit ñi jàmbat coono yu bari yi yu ci bari mën a wàññi ko bi mu ñëwee Madina la mu fa fekkoon moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy dafa fekkoon yahood yi occupé wàllu commerce am commerce moo fa nekkoon yahood yi ñoo ko occupé di jëflante ci riba riba mooy saa ma la lebalee téeméer boo jaaxle bu ñëw ci man leb ma téeméer ma ne la boo may fay téeméer juróom fukk nga may fay te amoo pexe ndax yaa ngi nekk ci digg ab nawet dara ñoragut te li ñoroon daaw jeex na mënoo ñàkk loo dunde nga ñëw di leb kooka ni la téeméer bu ma la jox danga ma tegal juróom fukk pexe du am jëflante boobu lañ doon jëflante ak nit ñi te ñoo yoroon wàllu commerce bi ña ca des ñëpp ñii ay baykat lañ ñii dañuy sàmm ñii dañuy rëbb ñii di taxan taxan mat daanaka société bi jullit yi foofu leen yonte bi sallallahu alayhi fekkoon mooy daa fekk ñii di sàmm ñii di bay ñii di taxan ñii di rëbb waaye commerce mi ak alal ji dëgg-dëgg ci loxo yahud yi la nekkoon te yahud yi jëflante riba lañ daan jëflante ak ñoom mooy di leen teg lu diis te duñ ko sañ a bañ ndax nit ki bu amul lu mu dundee lam bayoon daaw jeex na te ren dara ñoragul mu ñëw di la lab si loo ko ca teg rek dana ko nam waaye loolu yonente bi itam jëkk lijjanti mooy lu mel noonu te ñooñu yoroon alal ji ëpp nit ñi alal man leen lebal amuñ jikkoy diine amuñ benn jikko bu rafet buñ sukkandiku bu weesu seen sentiment yi bopp muy seen bëgg-bëgg yi bopp muy di jëflante ci riba di jëflante ci euh, di di di di tax nit ñi tax yu seer di jëflante ak nit ñi ci riche te mooy di leen nax jar di jëflante ak ñoom ci ay wor yu metti te duñ ko sañ a bañ mu mel ni kon yonent bi mu ñëwee li ko gën a itteel am na itte ju kawe ju ko ñor muy wàllu régler wàllu économie ci Madina mu jëkkoon ci ñaari mbir ba ci jëkk mooy li ñuy tuddee al mawaaridul iqtisadiya te mooy nit ñi lan lañu war a mën a jàpp pour jàll ci seen wàllum dund loolu daf ko ñor mu war koo jëkk lijjanti bu ko lijjantee ba noppi nag ba luñ jàpp am mu réglé jëmmi nit ki ba xam moom loolu mu ko jox nan la koy saytoo ñaari mbir muy léegi wane wane na ni économie wàllu économie euh, ab xaaj la ci diine boo xam ne mënta beru ndax diine ak jaamu yàlla bu ñu ko waxee bu ma xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun yàlla boobu li ñu koy xaaj ñaari xaaj benn bi mu ñu moom la ñuy tuddee ibada sha'airiyya jàmm yàlla goo xam ni mooy julli ak woor ak jàng alquran ak sikkar ak yana demee te mooy jaamu yàlla goo xam ne diggante nit ki ak boroom képp ci la dox ñaareelu tomb jàmm yàlla mooy ibada taamuliya mooy jaamu yàlla ci jëflante gi ngay jëflante ak te ñaari tomb ya tombi jaamu yàlla yooyu bi suñu borom ne wa aqimu salaa muy benn tomb bi mu fétewoo wa aatu la ci teg tomb boobu mooy bi nga xam ni moo jëm ci sa digganteeg doomu aadama yi ngay jëflante mu jàngal nit ñi ni leen économie ak jaamu yàlla la boo goo xam ni mënta dañ ci diine la muy tekki mooy li ngay jaaye ka jënd ak di ko jëflante ci wàllu liggéey bul ci fen bul ci wax lu bul ci wor bul ci naxe bul ci exploité kenn bu ñu toll it nit ñi ittewoo ab dund yow nga ab ab ab dund dégg ni prix yaa ngi waaj a seer nga téye ko bañ koo jaay nit yëpp mu araamal araamal te it lu mat a jàngat la jamono bi ñu muy jaamu yàlla yi jëflante yooyu ndax euh, day mel ni nit ngir mu am alal jamono bi ñu nii dañuy sakk buntu yépp ba mu des benn benn ba mu xool mooy bi suñu borom nanguwu teg ca boobu képp ci la mën a jaar pour am alal loolu it kon jamono bi ñu toll lu mat jàngat la ndax yahood yi ñoo fi nekkoon jamono boobee daan jëflante ci jëflante ak riba yahood yi ba fii nu toll économie àdduna bi ci seen loxo la nekk banque boo fi gis rek ñoom ñoo ko kere te nañuy jëflante ak nit ñi jëflante boobee ñu daan jëflante ak nit ñi ca Madina te yonte bi doon ko bañ alxuraan ñëw di ko tere muy muamala rabawiya banque yépp ci lañ nekk ba ci banque yi ñuy tudde banque islamique sax dañoo xaw a gag ndax méthode bu ne rëdd nañ ko pour seet nu ñuy jaare pour mën a nit ki bu bëggee lépp mën a dem ba noppi njariñ mën a des ci moom njariñ mën a dellu ca kee te doon riba waaye ba léegi nii amaguñ ci bunt bu leer naññ naññ naññ boo xam ne danañ ci mën a jaar kon loolu wàllu économie ci diine lu mat di waxtaane la di ko bàyyi xel di xool ba xam lu nuy defaat ngir saytu suñu diine kon la mu daan bañ ba tey muy fen ak wor ci wàllu liggéey muy liggéey nga marque sàngam waaye nag boo obligé wul def ci beneen marque buy tekki ni original la bootul du jar am na benn commerçant bu ma nettali boo xam ne dafa dem Chine léegi ñu di ko laaj ne ko sénégalais yi ndax ay jullit lañ nee ma ne ko lu tax ngay laaj loolu sénégalais yi ay jullit pire lañ nee na ne ko damaa gis ay nit danañ jóge France ñee jóge Angleterre ñee jóge Allemagne waaye ku ci ñëw boo may liggéeyaloo nangam loo xamante ni 10 la danga ma ciy def loo marqué diis liggéeyloo lo loo xam ne sept la defaloo ma ci marqué sept ñii liggéeyloo 5 cinq defaloo ma ci marqué 5 sénégalais ñoy ñëw liggéeyloo lo loo xam ne cinq la ni ma defal ma ci marqué 10 marqué dix marqué ma ko mu ni ko nak motax may laaj ba xam ndax ñu ay jël lañu wala lolu moy li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwoon ngir diko xex xeex nak nak ñun bu ñuy misal fi tolni toll ñu misal misaal ni riche moy ngay jaay meew fap ndox ñar ko ca wala ñu misaale ko ni mooy ngay jaay lem fab tuuti lem ndox jar ko ci mbaa ngay jaay café dem dëbbu pepp jaxase ko ca mu doon café pepp te nit ñi di ko mën a xamal waaye loolu lépp la te yonente ne man rachana fa laysa minna léegi ak yu demee noonu yépp nag ixtikaar mu daan ko bañ lool te mooy nit ñi toll ci soxla dund bi yow nga yor dund bi di xaar période bu cher ba tax doo ko nangoo jaay kon diine ci ñett yépp la yëngatu muy ñetti euh, éléments yi composé doomu aadama lu ci ne da caa wax lu leer muy nit ki danañu ko jàngal xam-xam ngir am xelam mën a dund danañu ko jàngal nu ñuy jaamoo yàlla ngir ak ruuxam mën a dund waaye noonu lañ war a xoole wàllu économie am ko ba nga xam ni dana mën a ànd ak ñaar yee kon diine ci ñett yépp la sonne alquran bi mu nuy tudd dafa tudd xeetu yonente bi ummatan wasatan ummatan wasatan wa kadalika jaalnaakum ummatan wasata dama leen def ngeen doon xeet wu digg doomu mu bëgg kon ak digg doomu ci xeet wi jamono bu ne digg doomu buñ koy xool ci wàllu économie mooy li suñu boroom wax ci alquran ni wala tajal yadaka maglulatan ila unuqik waaye nag wala tabsutha kullal bast suñu boroom dafa bëgg digg doom moom la jàngal ci alquran dafa bañ nga mel ni dañoo boole sa ñaari loxo njoñ ko ci sa gannaaw loolu kinaaya la ci nay gu ëpp waaw nay gu ëpp ni kat yiw ci li nga yor nga xam ni benn dërëm du génn am na ñoo xam ni sunu nay àgg na ci asaka sax duñu ko génnee te asaka lu néew la ci lu suñ borom laaj laaj laaj na ki ci alalam te ginnaaw bu mu ko laajee asaka ba ko daf koo joxañaat yeneen joxañ bunt yu mu war a jàppalante ak nit ñi ngir dund bi mën a tegu ci aw yoon waaye suñ borom ni bu leen fab seen loxo mel ni dañ ko njoñ ci seen i ginnaaw ci ak nay waaye nag wala tab sutaha kullal basti loolu it kinaaya la ci pasar pasar maanaam bëggul ku nay waaye bëggul it nag ku pasar pasari loolu mooy tabdira kon dépense bi suñu borom waral ci nit ki ci alal ju mën doon bu ko xoolee ku ne mën na ko te it jullit yi bu fekkoon ni jëfandikoo nañ ko ni ñu ko war a jëfandikoo li leen suñu borom digal ci wàllu jàppaleen ci wàllu économie bu ñu ko ne jëfe woon euh, mboolem analyse yi nee nañ buñ ko ne jëfandikoo woon benn jullit bu doon ak faqiir du am ci àdduna jullit yi un milliard et quelque waaye bi xoolee liñ moom ci alal bu fekkoon ne li ñu war a génnee génne nañ ko jullit bu doon faqiir doo ko gis loolu ñuy analyse yi ci wàllu économie gis nañu ko ndax suñu borom lim laaj nit ki ci alalam jamono bu ne man na ko ndax danaan la boo bayee boo amee fukki barigo fabal benn barigo ba joxe xanaa dëkk bu kenn ku ne góorgóorlu ñun ñëpp ñu jéem a bay kenn bañ a wàccandiku nga xam ne ka amut yàllaa ko nattu waaye mi ngi doon jéem kem kàttanam bu kenn ku ne génnee aslëf ci li nga yor jox ko dana mel ni ku bayoon comme ñëpp waaye nag moom itam bu mu wàccandiku dañ koo tere mu wàccandiku di xaar sarax yooyu diine ni mu digle joxe noonu la bañe kuy laaj kuy xaarub sarax diine bu demee sàmm ya danaan leen ku ci am ñeen fukki gàtt benn laa la ci laaj at mu ne bu fekkee sàmm bu ne mi ngi jéem a góorgóorlu kem kàttanam ka ci am ñeen fukki ñu laaj ko benn benn boobu du ko yëg te bu ñu ko dajalee ña am jafe-jafe ba mënuñoo jàll loolu yi dana leen mën a jàllale ba ñu am lu ñu jàpp ñoom itam bu dee alal bu dee xaalis walla wurus un million boo yor diine juróomi junni lañ soxla ci yow par ay million bi bu fekkee am nga ko wala ko denc ko at juróomi junni yi képp la soxla ci yow te loolu xanaa war naa mën a woyof tooy te loolu bu ku ne góorgóorloo na leen ko suñu borom di na leen ko diine digale ba noppi ki war a génnee génnee buñ xoolee ñañ ko war a jox ñu jox leen ko ñu ñu danañ daal di mën a taxaw boo xam ni danañ xaw a dab dabaatal si ñii leen koy jox mu mel ni bi mu fabee alal jooji nga xam ni day farata mu farataal ko ci nit ku ne jamono bu ne mu seet ci lu yanu max naa loo xam ni nit ku ne mën na mu sàkk ko ci ñoom kon lu aju ci sarax bi mu ko diglee dañuy fab sarax bi xiyaas ko ci loolu yi mënu digal ci wàllu asaka buñ ko ci xiyaas duma la ne fukk yoo am génneel benn ba mbaa maa mbaa ñaar téeméer waaye dama lay wax ne la del génnee cinq pour sax dix léegi xoolal li nga am li ngay am ci weer bi nga xaaj ko fukki xaaj fukkeelu xaaj ba nga xaaj nga xaaj ko benn xaaj seet noo ko dugale ci ab sarax teg ko ne rek pour jublu koo dimbalee say mbokk ak jublu ko sarax xoolal li nga am ci weer wi nga xaaj ko fukki xaaj fukkeel bi sax duñ la ko laaj waaye jëlal benn xaaj bi nga xaaj ko teg ko ne ngir di ci xaar lu mel noonu noonu rek bu ñu buñ ñu ko ni doxale woon ragal naa ni lu bari mën naa lijjanti ko ci jafe-jafe yi économie yi ñuy dund te boole ci yonente bi sallallahu alayhi wa wax ni sarax du wàññi mukk alal du wàññi alal loolu ni ko mën a misaale yow sarax bi nga waroon a génne génne woo ko mën naa am mu toll ci nga am junni ni ko kat yooyu ne du ma ci léegi fukki dina ni ma ci saraxe nangam nangam waaye ordonnance mooy jóge fële ci kaw dikk ni fuuf junni ba leb loola beneen junni dolli ko ci léegi te fekk ne mën naa am fukk yooyu seen ba bu ñu la ci saraxeloo boo ko saraxoon dana la aar ba lii du agsi dana la aar ba lii du agsi noonu lu yonent bi sallallahu alayhi moo wax ne dee leen saafara dee leen faj seeni tawat dee leen ko faja sarax sarax di génnee sarax waaye nag noonu mu diglee sarax yëpp noonu la tegee nit ki ci ab liiñ ba bëggul sax nga jël li nga am sarxe ko ba sag njaboot doon fi bàyyil dara ndax benn saxaabi yi bu ñu wax Saad ibn Abi Waqaas mi ngi nett li ci euh, mu wax ni at mi yonante di ñëwoon di aj xajjatul euh, wadaa Saad ibn Abi Waqaas dafa ñëw ni yonante bi man kat damaa tawat ba amatuma yaakaar ci sama bopp te ku bari alal la te benn doom bu jigéen képp laa am bu ma war a doon ndax duma mën a xaaj alal ji ma ci digg bi sarxe genn wàll nee na yonente bi ne ko loolu ëpp naa def xaaj li nga yor ci digg bi di sax ak genn wàll gi ëpp naa def mu ni ko kon teem ma koo xaaj eh, ñaari xaaj dañu ko woon sax damaa bëgg a xaaj alal ji ñetti ñaari xaaj yépp ma saraxe ko bàyyi fi benn bi yonente bi ne ko loolu ëpp naa xalaat mu ni ko kon teem ko koo xaaj ci digg bi saraxe genn wàll gi bàyyi fi genn wàll gi mu ni ko loolu ëpp naa def mu ni ko kon teem ma koo xaaj ñetti xaaj saraxe benn bi te ñaar yi ma bàyyi ko fi mu ni ko sulus bi sax bari ni ko xanaa xamoo sag njaboot nga bàyyi leen ñu am luñ njàpp moo gën nga bàyyi leen fi ñuy war di yalwaan nit ñi ni ko xanaa xamoo ni lépp loo fab dépensé ko te yàlla képp tax ba nga koy dépensé ba ci tib bi ngay def ci sa gémmiñu soxna sax suñu borom dana la fay aw yiw kon ñu xamee ci ni sarxe dina digle na ko waaye tekkiwul ni daf laa teg loo mënut boo bëggee tegoo loo mënut sax mooy moom mooy jëkk ñëw tegil la ko kon nag la mu xool ba teg la ko mu doon loo man bu wér a góor-góorlu ci sa kem kàttan baax na ci loolu te nit ñi dañuy fab aaya laa yukallifu llaahu nafsan illaa wusaha di ko firee nu mu leen neexee mooy léegi daal loolu mënu ma ko yàlla yàlla teewul kenn lu mënut waaye fekk ne yàlla teewul kenn lu mën la muy tekki mooy ña ña un million nga am mu laaj la ci juróomi junni xam ne mën nga ko bi la ko daatan teg kon lépp lu la teg rek noonu yi la dem waaye bokk na ci li tax nit mën a saytu économie boppam ba mën a saytuwaale yeneen économie yëpp mu bàyyi xel bor moytu ay bor ndax bor bokk na ci li nga xam ne day njoñ nit ki ba dootu tale ci dara waxuma di tale tal di tal lu mu dimbalee nit li li mu dimbalee kenn yonente bi woon na ci noteelu bor ange bi min galabati dayni wa qahri rijaal te bor bu woyofoon sun borom dina ko jéggal ki dee ci xare te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci xadis ni bépp bàkkaar sun borom dana ko jéggale ba mu des bor bor moom yaa kan ko seqaloon yéen a ko seq waaye sun borom du ko jéggal kenn kon loolu ba tey nit ki bu bëggee saytu ab dundam bëgg a saytuwaale ñeneen fokk mu bàyyi xel di moytu bor ligne bi nga xam ne ba tey borom xam-xam bi dañ ko rëdd di ci teg nit ki pour mu mën a économie mën a sàmm économie boppam mën a sàmmaale ñeneen mooy ngay xool li ngay am nga fab genn wàll nga dépensé ko la ca des nga denc ko ngir waajale ko bis bu agsee ko ndax adduna suñu borom moo ko tëral la muy neex tey boo liggéey mën a xaj kon loolu dañuy bëgg nit ki mu am yëg gu toll ni bis bi muy neex mu bàyyi waale xel bis bi muy naqari loolu dañuy bëgg nit ki di ko bàyyi xel naka noonu dañu lay euh, conseil ñoom woo boroom xam-xam yi nga xam dañu jëm ci yëngutu ci wàllu économie ne la ba tey boo demee ba sa bakkan puus ci jënd dara lu bokkutoon ci sa programme bi nga programme woon ci weer loolu nga war a jënd na nga ko waajal une semaine baa nga waajal ko un mois ndax bakkan moo xale ñoo yem lu mu bëgg lu ne day bëgg daal mu daal di am ca saasi te boo ko waajalee une baa nga waajal ko un mois mën naa am xelam génn si mën naa am sax nga gis ni ñorut kon loolu bokk na ci li ñu lay dimbalee pour mën a saytu sa wàllu économie la ci des mooy weer wu ne nga xool li nga ci war a dépenser nga di ko programme programme bi ne weer wi nangam bii moo ci sama dépense ba noppi nag teg ko noonu teg ko à loolu ba tey bokk na ci lii dimbalee nit ki ci nu muy saytoo alalam ak nu muy dimbalee nit ba mën a saytoo alalam la ca des mooy nga yemale say bëgg-bëgg ndax bu fekkee ni foo sémbu dara ba ak nga sémbu leneen dana mujj dootoo tala dimbali kenn te nit ki euh, sunu borom li ko gën a ñor mooy nit ki bàyyee xel ëllëgam bàyyi xel ëllëgam waaye boo sémbee lii terrasse bi moom bu àggee moom moom dana baax ba mu àggee nga sémbu weneen étage dañuy bari moo tax moom kii moom naa ko àggale bi fa am kër goo xam dama faa bëgg di fa féex di fa liibar ndànk par ndànk rek ne Dakar bu ne su dem di ci këri jàmbur yi ndax dafay xat léegi fokk jéemawul kër gu Dakar moom dana ci baax nag loolu ku ko topp dimbalee ci kenn dimbalee ko sàkku ci ab sasan dëta moo tax yooyu it lu mat bàyyi xel la ngir man a saytu suñu diine dañu lay conseil ni la marché ba boo ciy dugg da fexe ba wut listub li nga bëgg a jënd nga xam ne ci kër gi nga koy xalaatee ba bind ko ba noppi bu ko defee boo demee leneen luñ mën a xoymet ci say bët nga bañ ko jënd léegi ndax fekk ne nga bind ab liste ba noppi loolu lépp nii day dimbale nit ki ci wàllu économie bi su yonent bi sallallahu alayhi waxee nag ne al ulamaau warasatul ambiyaa yi mooy ni boroom xam-xam yi ñoo wuutu yonente yi mel ni kon damay wax ni sëriñ si ñoo fi taxaw taxaw ay yonent yi kon sëriñ si war na ñuy bàyyi xel ñett ñetti mbir yooyu yi nga xamante ne moom lañu wutoo yonent bi muy dundub ruug net ki ci jàmm yàlla di ko soññ ci jaamu yàlla waaye nag nga bàyyi dundub xelam te mooy sos ay jàngukaay yoo xam ne waxuma sax ñu jàngal leen alxuraan ñu mokkal ko rek di ko tëj wit waaye ñu xam la alxuraan di tekki muy dundu xel mu des it wàllu économie bi ñu bañ leen bàyyi rek seen pexe bopp ak seen testis bopp ginnaaw bu ñu fabee mbir yépp jébbal na ko dinu bàyyi xel ñu itam ñu di leen bàyyi xel ci ñett yooyu yépp ngir ñu mën a wóotu yonente bi sallallahu alayhi wa ci dëgg-dëgg yi ak wóotu kon bu ma waxee sëriñ si jàppale taalibe yi ci wàllu économie jubluwuma ne ñenn ci taalibe yi nañ fab seen alal di ko joxe léegi ñeneen ñëw ngir jël si ko nga jox leen ko loolu tegul ci yoon sëriñ sëriñ Saliou ci ay jamono dafa jënd ceeb bu bari ba dongo yi di waxtaane naan sëñ bi dafa wax ne daa bëgg dongo yi di dundee lu mel ni li nit ñi dundee ngir dem bu bari bi mën a wàññi bañ ko analyse noonu mel ba ñëwee ba toog moom ni ko dongo yi di ñu ngi sant bu baax a baax ci ceeb bii nga jënd mu ni ma sàllaaw de teguma ko ci bakkan ak dara waaye da di Eh, mbay mi ñuy bay asaka ji su ma ko jëloon di leen ko jox man naa am ñii jot ci ñee duñ ci jot te mu wóor ma ne su ma ko jëndee ab ceeb dana leen bégloo te sëriñ bi daana fa asaka yi ñii tarbiyawu di leen ko dundale te moom lépp lu mu def ci yoon wi aw yoon la ca ni ma lii képp laa jublu muy asaka ji laa fab noonu ngir di leen ko dundale moom laa jëndee ceeb noonu daal ne lii seen morom taalibe indi ma di ko fabaat di leen ko dundalee sama xel da ko nanguwut nga xam da leen di bëggal lu leen lew doom mooy li ñuy liggéeyee dañ koy liggéey ngir jëm Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa bañ koy liggéeyee dana moom fa mu koy dugal ci loo xamante ne njëriñul jullit la waaye nag ñoom seenu ñaq buñ ko bu bu mu naax saay nañ fab asaka ji dundal leen ko seen moroomi talibe yee dem di liggéey lañ andi ñu teg ko fi dugalal leen ko fañ dugal seen liggéey bee loolu mu gën ci waaye nag bu waxee ne ñu jàppale nit ñi ci wàllu économie la ma jublu mooy lañu soseekoon ay kër yu rafet yu bare bari yu amatul yobukaay ñu di ko sase ay liggéeyukaay donte ñaari place la boo xam ne dana mën a jël ñaari nit ba ñetti nit ñuy liggéey sax loolu dimbalee économie réew mi la dimbalee ñu nekk ci suñu ginnaaw lay tekki waaye tekkiwul sax fab xaalis di ko joxe ndax fab xaalis di ko joxe moom ku ci dugg yi doo jàll moo tax euh, sëriñ Cheikh sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma euh, dafa amoon xalaat yu gudd ci fànn kooku may waxe noonu ndax moom moo jëkk xalaat ni eh, Touba somaan bi dafa bari muy taxawaalukat yi amul luñ jàpp dafa bari moo doon lijjanti ci benn projet boo xam ni projet vingt cinq milliards la ci nañ ko waxee ngir bëggoon a liggéey ay usine ci Touba ak li ko wër ngir bëgg a wàññi limu ñiy toog loxo yi neen kon loolu ba tey eh, lu ñu war di bàyyi ci suñ xel la bàyyi xel ni ni ñu war a dundalee Euh, jëmbuleen nit ñi ci seen wàllug ruu mooy di leen digal jaamu yàlla tabax jàkk di leen ci soññ noonu lañ leen di jëmbulee ci seen wàllug xel te mooy di yokk xam-xam bi jamono bu ne li fi am ci xam-xam ñu saytu ko la amagutoon ñu jëggaani ko indi naka noonu ñu di leen jàppale ci seen wàllug dund te mooy di seet liggéeyukaay yoo xam ni dana mën a jël mbooloo ba dana mujj taxawalkat yi ci mbedd mi mën a wàññiku loolu lu mat di bàyyi xel la muy continuer projet yooyu kon bu nuy tënk li ñu wax dama koy tënk ci ay baat yu néew mooy ba ci jëkk mooy fokk ñu jóg xool li ñuy tuddee mawaarid iqtisadi yi te mooy euh, euh, bunt yi mën a génne alal pour nit ñi mën a am luñ jàpp fokk ñu sàkkaat ci pexe bàyyiwaat ko xel la ca jëkk mooy jëmmi doomu aadama bi doomu aadama mooy kii gën a rëy ci ku ñuy bu ñu tàmbalee yëngu ci wàllu économie moom la ñu war a jëkk lijjanti ba noppi ndax nit ki mën naa am alal ju bari waaye du am xam-xam ko saytoo kon fokk ñu jàppale nit ñi jàpp ba ba ba loolu ñu mën koo saytu defar nit ba mën a saytu alal mbaa bu mën a saytu alal ñu defar ko ba mu yor jikko ju rafet joo xam ni bu ñu ko saytu loo mën ko saytu ñaari yooyu rekk ndax kii day am alal du am xam-xam bu mu ko saytoo kii am na alal bëgg borom doole bu ko dimbale borom doole boobee jikko yi baaxul ba bu ñu ko ko dénkee mu yàq ko dem léegi loolu kon defar nit ñi ba bu ñu amee alal am xam nañu ko saytoo defar nit ñi ba bu ñu amul alal ba borom alal jël leen di leen saytuloo alal ñu am ci ak maandu te lu tal ne du ñu yàq alal jàmbur loolu tomb bu am solo la boo xam ne dañu ko war a jàngat ba tey li ci li ci ñaareel bi ci li nu gën a ñor ci soññe bi mooy bàyyi xel loolu yi muy loolu ma waxoon ni euh, Serigne Cheikh Mbacke doon na ko xalaat muy ay projet yoo xam ni day tax nit ñi am lu ñu jàpp ba soomal bi wàññi loolu ba tey lu mat di bàyyi xel la ci ko suñu borom defal ndimbal moo xam ci wàllu xel la moo xam ci wàllu xam-xam la wala ci wàllu alal ba ngay taxawal dara ginnaaw bu ñu defaree nit ki ba noppi nag jàngal ko it nu muy téye bopp alalam jàngal ko nu muy fexe ba am alal ñu jàngal ko nu mu koy téye nu muy téye alal ji ba du ko pasar pasare du ko yàq loolu kon mooy liñ jubloo tënk ci e, tomb yi ñu doon wax ma jàpp ni saa bu ñu ko doxalee noonu nii muy ñetti tomb yooyu ñu jël ko defar nit ki ci wàllu xelam defar nit ki ci wàllu jaamu yàlla ba mu amuk ragal yàlla ba ba ba lu bari du ko ñeme ñu wut nag ay liggéeyukaay ak nu ñu leen poussé ñu liggéey ñu won leen ligne ba ñuy jaar ba duñu yàq lañuy liggéey bu ñu ko defee loolu mën naa indi ak defar bu rëy ci société bi ñuy dund ndax bu ñu amee société boo xam ne duñ jëflante cere riba am société boo xam ni wor day dañ ci ñoom boo ñëwee ni leen lii marque sàngam laa ci bëgg ñu wan la lay jar fukk wan lay jar juróom wan la lay jar ñeenti dërëm te duñ lay wan mukk lay jar ñaar dërëm ñaar lay jar bu ñu demoon am nit ku mel bu boobaa danañu àgg ci jamono ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax nee woon na danañ dem ba jëmmi jamono nit dana yor ab sarax di wër kom ko jox du ko am mën naa gis nit sax di ko ko jox kooka ne ko démb de ba mu ko joxoon ma soxla waaye tey mu te loolu lépp la ko mën a may rek mooy tegu ci ligne bii munu rëddala walaw anna ahlal quraan amanu wattaqaw la fataxna alayhim barakatin min alsamai wal ard su borom dafa saxal ci alquran ni nit ñi bu ñu amoon ak ragal yàlla li mu leen di digal ñu ko jéem a def seen kem kàttan la mu leen di waaye nag digal yi ñun dañ ko gàttal ci jàpp ni mooy julli woor ak jàng alquran yun den waaye fekk ndigal yi ba ci commerce moom yi sax nga jàpp ni li boko defé da ngay carte bo ci xolé ndigalu yàlla bo ci jaaree carte moo ci am ci cet suñu borom moo ko garanti te dafa am ben borom xam-xam bu way ni juróom ben mbir dana sabab wërsëg ci alquran te yépp sax ci alquran asbabur rizqi sittatul muhaqqaqa tuqal tawakkulun salatun sadaqa kadaaka al istixfaaru taharruku wal kullu fi alqurani jaa mudraku لكننا لجهلنا لم نعمل الا بما يتعبنا من عمل مو واخني لي سبب وسك جيروم بن مير لا يو خامني ييب سخنا نيو تي القران با تي ديك موي توقا موني سون بروم موني ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب توكل موني سون بروم موني ومن يتوكل على الله فهو حسبه كيف كو سوكني كو سون بروم سون بروم دانا لا دوي salaatun mu ni julli bokk na ci liy sabab wërsëg suñu borom moo ni waamur ahlaka bi salaati wastabir alayha laa nasaluka risqan nahnu narsuquk kon nit julli nga fonk ko di ko fonkloo sa njaboot bokk na ba tey ci liy sabab wërsëg sadaqa muy sarxe suñu borom moo ni wa ma min shay'in fa huwa yuxlifuhu wa huwa xayru raasiqin lépp loo joxe rek danaa la ko wóote la kadaaka listixaar jéggalu suñu borom jéggalu dafa dafa mën a sabab wërsëg fa xultu staxfiru rabbakum innahu kaana gaffaaran yursili samaa alaykum midraara loolu suñu moo ko wax wa taxarruku nag mooy juróom-benneel mu wax ni famsu fii manaakibiha wa kulu min risqihi mooy jóg di sàkku pexe mooy juróom-benneelu liy sabab wërsëg mu ni waaye nag sunu réer moo tax ñun lii nuy sonal rek lañu jàpp ni moom képp moo mën a may wërsëg loolu seex mal ay nay ni mi doon màggiwu seex Sadibou moo ko wax te it lu mat di bàyyi xel la muy wàllu économie ndax bépp société boo xam ni wàllu seen wàllu xam ñoru leen xam-xam ñoru leen société buy toppee képp lañuy doon ba faw waaye duñ jàll mukk ci te it di am mooy li Saalih ibnu Abdul Xudus wax muy ñaar rekk a fi nekk man naasu illaa aamilaani fa aamilun qad maata min atashin wa aaxaru yartiqu mu ne ñaar yi rekk nekk nit ñi ñaar lañu kii dafa màndi ba lapp kii aw mar a pare te loolu bu ñu xoolee ci société yi moo ci yaatu lool ñaari nit ñooñu muy ki màndi ba lapp muy am lu la ëpp lool ba géejal ba xamoo koy def ak koo xam ni Euh, noonu nga amee lu ëpp rek noonu la manqué lu mu jàpp moom kon bu ñu saytoo nit koo kii xool wàllug xel wàllug ruu wàllug yaramam xool ni ñu koy saytoo ci wàllug alalam kon rôle bokk na ci rôle yi nga xamante ne alal dana ko jouer man koo defar muy dana tabax nit tabax nit ku baax ku mën a lijjanti àdduna ndax bari na ci Euh, africain yi tardé moo xam ni la leen ko teg mooy ñàkk alal ndax nit ki bu tollee ci di lijjanti fu mu dëkk ak lijjanti lu mu dundee kooku dadul am jotu taxaw fenn dafa étudier ay masala bay am xam-xam ka nga xam nag su na ko bu yàgg ba am lu mu jàpp kooku mën naa saytuwaale mbooloo mën naa saytu mbooloo moo xam ni da leen di puus bañ jàll ndax am na benn borom alal bu faatu woon bu yàggul ba ñuy lim lam def wax nañ ni junni nit junni xale yoo xam ni moo leen dugal ñu tàmbali certificat ba am doctorat am na ko ci lu baax junni nit tabax na nanga ni ñetti téeméeri école tabax na wut na ci ay handicapé lu mat ñetti téeméeri nit ñoo xamante ni léegi dañ waxuma sax handicapé ñoo xam ne dañ leen a foree woon ci mbedd mi mu jëlee leen wuti leen ay kër saytu leen di leen dundal jàngal leen ba ñu qualité loolu wut na ci lu mat ñetti téeméeri nit kon alal ci bu fekkee saytu nañ ko ni ko diine bëggee ci li gën a mën a defar ab société la bokk ci li gën ci àdduna la bokk waaye nag bu fekkee nag léegi dañ ko saytuwut ni mu ko waxee it daanaka ci liy yàq la bokk kon euh, fexe ba dundal ruug société waaye bala moo mën a dundee ba see nit ki daa defaru ba noppi rek fi mu toll nii euh, li nu gën a sonal mooy kenn ku ne ci noonu da ngay ci ab côté di yëngutu ci dara di ci yëngutoo noo xam ni keneen di yëngutu ci leneen keneen di yëngutu ci bu ngeen matoon ñetti nit képp takkatoo la ngeen di yëngutu dana fulu ñeenti yoon waaye day mel ni yàlla dana natoo jaxasoo société mënuñu ko ndax la ko gën gën gën a waral mooy mën nga koo bëgg waaye koo ko àndal nga du gis ndax warkat yu bari lépp nag ba tey mu ngi delluwaat ci ñu war a gën a defar nit ñi ci wàllu ruu defar leen ci wàllu jikko ndax bu wàllu économie ñëwee mën a jàll waaw ndax euh, nii nga xam ni kenn ku ne day beru rek di jéem euh, dem na ba ci daaree alxuraan yi maa ngi ko doon jàmbal bëgg dem di wax ni sëriñ bi ginnaaw bi mu sosee bi mu ñëwee ci dëkk bi sanc si ko daf ko sance woon alxuraan ak xam-xam ak tarbiya léegi dafa mel ni e, ñeenteelu tomb bi nga xam ne mooy murit bi ñëw rek lu doon muritu takkoo nga xam ne day jébbalu rek dem bu amee addiya ñëw jox ko delluwaat dafa mujj mu mel ni dañoo toll ci jamono boo xam ni murit boobu képp mooy dox waaye ñii dox léegi nag ma bëggoon ñu saytuwaale lépp di saytuwaale daara yi di saytuwaale e, daara alxuraan di saytuwaale xam-xam bi saytuwaale tarbiya gi doog a saytu nag murid yi nga xamante ne dañoo jóge ca mbedd ma dajal seen addiya ñëw di ko joxe wala daal bu ñu defal tawfiix gën noo defal ndimbal yal na yàlla defal dégg di jéglu bu baax ndax euh, xat-xat yi weer yi dafa bari ba bari na waxtaan yu ñuy wax yoo xam nañ ko war a waajal duñ ko mën a waajale noonu waaye yàlla mu defal na di ñaan kilifa yi nekk ci suñu kanam ba noppi sa taxawu euh, gone yi yor wàllu bi ba mën leen a puus ba ñeme fi ñu jëmit ñoom itam yàlla bàyyi leen seen kanam lu yàgg defal leen dimbal defal leen tax jërë ko jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf euh, sëriñ waxtaan wi fa tabarakallahu matale na matale na te jot na te jàpp naa ne mbokk yépp jariñ nañ ci mu nekk thème boo xam ne thème la bu am solo thème la bu jar a waxtaane thème la bu yitteel jamono mooy al iqtisaad mais économie donc dama bëgg a intervenir rek ci ñaari point bi ci njëkk mooy wàllu azaka man dama gis ne azaka ji Sénégal su fekkoon ne organiser nañ ko nañ ko waroon organiser dëgg dëgg dëgg man jàpp naa ne ñàkk gi dana wàññeeku waaye nag yàlla dafa dogal ne wala yàlla dafa dogal ne ni ñu ko waroon organiser asaka ji moo lañ organiser wul ndax bu ñu jàng ci histoire ci jamonoy Omar ibn Abdul Aziz yaakaar naa ku ñàkk amutoon ca la ko sababoon mooy dañoo organiser woon asaka yi di ko jox ñi ñu ko war a jox ku nekk jot ci kon yaakaar na il faut nu xoolaat nuñ koy organiser nit ñi ñi ngi génn asaka naam waaye am ñoo xam ne buñ ko génnee duñ ko jox ñañ ko war a jox loolu tam beneen beneen njuumte la soo génnee asaka da ngay xool ku ko yeyoo nga jox ko ko beneen bu ci des mooy dama gis ne taw tawzi sarawaat moo xaw a manqué muy am am yi ci biir Sénégal ni ñu koy séddalee kooku ci population bi boobu loolu tim des na loolu mooy tawzi'u sarawaat kooku ci war nañu xool nu ñu koy defee muy distribution bi ba ku nekk population ku nekk ba Tamba sax li état bi di def nga mën caa jot sa wàll kooku distribution boobu des na ñaari batim mooy ñetteel bi mooy eh, li mu doon wax ci wàllu diine xam ngeen ne diine day tënk nit ki ci su fekkee dafay liggéey même su fekkoon ne da nekk ministre ñu yar la ci lislaam yar la ci nu ñuy saytoo alal ñu yëkkati ay milliards teg ko ci solo nala ne projet bi kat da nga ko war a financer marché bi danga ko war a defar dëkk bi danga fa war a tabax ay usine su fekkee yor diine fekkee yor nga yarub diine man jàpp naa ne milliards yooyee de doo ko détourné def ko ci sa compte ca loolu mi ngi am gis nañ fii ci réew mi ñu dund muy Sénégal gi muy lu metti ay ministres yoo xam ne dañuy détourner ay milliards ci seen contre ca population bay ko moom loolu ñàkk yarub diine bu mat moo ko def parce que kooku tubaab bi moo ko yar kon yëf yi metti na fépp waaye manque diine gi ak yar bi ak ki tubaab bi yar moo feeñal loolu kon détournement yi bari na di ko sabab mooy manque diine bi kon loolu ci ñu bàyyi ci xel kon ki ñuy jiite ñun saa su nekk la ñuy ci moom mooy mu jiital njariñu xeet bi ci njariñu boppam loolee nag njiit ñu mel noonu nañu am ko fii ci Sénégal Sénégal ñi ma fi gis njiit yoo xam ne seen njariñu bopp la jiital ci njariñu population bi ca loolu ba bu àdduna yi tukki Sénégal du dox maître wa aleykum salaam wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin سيدنا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين jëf sëriñ bi noo ngi lay nuyu noo ngi lay sant ci kàddu yu rafet yi ak ni nga génnee alal nuñ ko mën jariñoo ba mu mën a am njëriñ ci wàllu diine am njëriñ ci wàllu nit li nga fi indi leer na nàññi tubaarkàlla ba mel na ci misaal ne lu ci nit di dolli tànn ki amul ndax ni ñu war a sàkkoo alal ni ñu war a yare nit ki yar ruux yar ko ci wàllu diine yar ko ci ay jikkoom ba bu amee alal mbaa ku am alal dugal ko ci biir alalam mu mën koo saytu na mu waree te du ko yàq lépp leer na nañ man li ma ci contribution bi ma ci am bii rek la mooy gis naa ne loolu pour dëggal ko mooy mboolem doomi soxna yi nga xam ne yàlla dogal na alxuraan jëkk ci ñoom xam-xam njëkk ci ñoom ñu doog a génn wuti ñooñu boo seetee ñooy ñi fi ëppale waaye biñ ëpplee ba noppit ñooy ñi fi gën a jëf ci seen alal lu nit mën a jariñoo loolu bu ma xoolee ñenn dana am ñoo xam ne danaa leen cité xëy na duma ma cité nu ñu amee sax waaye danaa cité li ñu def ci lu baax ku mel ne El Hadj Jili Mbay ak Njuga Kebe li ñu def ci lu baax ñu dimbali ci ay nit te ay doomi soxna rek lañu fa tabaarakallaahu bari na lool boo seetee nag ñi nga xam ne ñoom dañoo dañoo dañoo dañoo sonn lool doog a am waaye fekk na yaru diine jiite ci ñoom ñu yar seeni jikko yar leen ci njub yar leen ci taalibe ba ñu génne fi dem wuti am muy ñu bari yoo xam ne mën nañ leen a sudee ñu bare ngi fi di def yu baax yoo xam ne yii seenu am-am la mu yàqu néew na loola dara warul ko lu dul ah, yar gi ñu leen yar ci diine ak yar yi ñu yar ñi ñu ampal waaye ci diine ba ñu am ak gëm am ak ragal yàlla loolu moo tax seen alal day yokku te naam sax boo leen xoolee xam-xam ba bareewul noonu waaye nag jël nañu ko am xam-xam koo xam ne ba mu amee xam-xam ba noppet yar nañ ko ci diine yar nañ jikkoom ba mu am jikko ju rafet ju baax mu ànd ñoom liggéey boobu di dox ba liggéey yi di yokk noo xam ne boo xoolee ñi nga xam ne intellectuel lañ dem di wut alal di ko sàkku nañ ko war a sàkkoo la ñuy am bu ñuy ñëwee daanaka day mel ne dañ leen di doubler ci lu ñu am te day mel ci misaal ne li ñuy jëf ci lu baax it ñooña duñ ko mën def donte bari leen nañ bari gu yéeme sax waaye du tax lañ war a def ñu mën koo def na mu ware ndax ñàkk nga ñàkk am yaru diine ndax ñàkk nga ñàkk jar seeni jikko ndax ñàkk nga ñàkk ragal yàlla ndax nit ki bu ragalul yàlla mën na sàkkoo nu ko neex mën na amit nu ko neex waaye nag na muy demee da koy bett lool ndax doomu aadama suñ boroom moo ko bind ci bëgg alal suy na bu saxawaate bi jeex boo ko xoolee la nga cay gis mooy alal rek moom lay suñ boroom ne moom laa bind nit moo ñaale ko ak moom nga xam ne daf koo bëgg waaye bi mu ko bëggee ba noppi itam ndax na mu ko war a jëfandikoo nañ ci war a dimbalante danañ ko ci def loolu ku dul doomi soxna joo xam ne yaru na yaru lislaam yaru na yarul diine defar nañ jikkoom mënu koo def kon loolu mën nañ cee gise ne am baax na waaye bala ngaa am na nga xam ni ngay ame amee sëriñ Mahmoudan daf daa wax ne bëgg naa am lool waaye aw amin moo ma gënal amin mooy nga fexe ba li nga am nga am ko ci lu lew ci loo xam ne dëppoo na ak ak ak ni ko lislaam bëggee fa tabarakallahu loolee loo ci am lu mën a doon dana barkeel dana mën a am njëriñ te dana mën a jariñee ñeneen ñi nga xam ne itam yàlla dogoon na amuñu woon waaye am na njar boobu ba nekk sa suuf ba am ci yow alal loolu moo defe naa ne mooy li gën a gaaw ci tasaare alal tasaare goo xam ne bu demee ci nit ñi dana dana yemoo kenn ku ci nekk dana ci def la mu ca war a def am ca lam ci war a am jàllale ko ci keneen moo am ci lam ci war a am ndax boo gisee ñu baree bari rawatina ci suñ bokk yi tukki dañuy dem am alal ju bari yónnee si ko fii ni nga wax léegi rek boo ñëwee ka nga xam ne moom nga gën a yaakaar bokk ak moom day ak baay wala muy ngeen jege ci wàllu bokk nga yaakaar ne dana la mën a jàppale ci loola fekk yaru diine njëkkutoon ci moom defaruñu woon jikkoom boo ñëwee loole nga amoon da ko yàqate boo ñëwaatee dangay def toj ci yàgg moom ngeen yem loolu dara jaru ko kon defe naa ne li gën a baax mooy nit ki na xam diine ñu yar ko ci diine yar jikkoom ba mu am ngor am diine am ragal yàlla nga doog a bokk moom alal bu ngeen ko defee la cay génne dana mën a tasaaroo am njëriñ bu baax a baax foofu mooy li ma bëggoon wax leneen li ci des lu tuute lu ma ci intervenir rek mooy dama gis ne lii sañ moo Modou wax léegi su fekkoonte ne li nekk ci golf bi li nekk ci Arabie Saoudite ci alal te lislaam jóge foofu séddale nañ ko ni mu ware def ko niñ ko war a defee ay milliards yooyu suñ ko tasaare woon ci jullit yi ñàkk defe naa ne ñëpp danañ mujj am amin mu rafet waaye loolu defuñu ko ndax dëgg-dëgg ah nekk nañu waaye dëgg nekkaluñ dëgg-dëgg lislaam ndax nit koo xam ne alal nga jiital am alal xëy na yar woo yarul lislaam xamoo nam war a demee lu lu la lislaam jege jege jege dana am lu des lislaam ma nga fa ñoom di makka ak madina waaye teewul lañu am ci alal suñ ko waroon séddale ni mu waree ci jullit yi benn faqir dootu am ci àdduna mbaa dana néew lool surtout ku di jullit kon loolu defe naa ne lu mat a bàyyi xel la ci ñoom ñu bàyyi ko xel waaye nit ñi am fii itam bàyyi xel loolu fa tabaarakallaahu ndax suñu borom kan moom wàcc na bi nga xamante ne yabal na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi euh, li mu njëkk a def mooy loolu nga wax waaye asaka rek boo ko xooloon la mu ci jublu mooy nit ki am ñëpp amandoo rek la bëgg ndax bu ñëwee ci dëkk fekk ñii am ñi ñàkk mu ne war nga génn sa alal ji tuuti coom jox ko ki amul te ka amul mu lim leen ña nga xam ñoo amul la tax amuñu ba ba ñu àgg ñoo ñu jël kenn ku nañ somp ab somp jox la day mujj loolee boo ko yaxanalee na nga ko war a yaxanal day mujj kenn ku ñàkk dootu am